dañ ko ne di wootee di di di bu si kanamee ubi wat ubbiwaat dañ ubbiwaat waaw ubbiwaat waaw Doudou pour ma rek euh, ma résumer hmm. euh, ndax c'est très important hmm. ñu sénégalais yi xamné parce qu'on a voulu leur faire croire que hmm. euh, problème mu état bi ak presse bi moy presse bi dafa baña a fay impôt loolu ce n'est pas la vérité deug dëgg ndax impôt kenn ku nekk euh xamna ni muy doxee man mii hmm. bañ ma euh, joxe euh, li ma war a fay ci impôt euh, ñi may liggéeyal du man sax maa dem parce que li ñu fàtte tamit mooy patron de presse bi n'est pas obligé di yàlle nous avons des collaborateurs tout hmm. ku nekk ak sa liggéey ku nekk ak sa liggéey man sama collaborateur man mosuma taxaw impôt hmm. sama collaborateur yi ñoom ñoo dem yóbbu lu ñuy laaj ñu dem lu ñuy laaj bari woon lool ci ñun te ñun ñu ngi doog a tàmbali sama collaborateur sama collaborateur dafa dem am ak ñoom ay rendez-vous ñu bari dem wax ak ñoom euh, ne leen nii ak nii expliqué leen euh, ñu nangu suñu explication euh, ñu fay.

fi de quoi il s'agit Moi, nguur gi dafa ñëw nguur gi bees gi salam. ñëw salaamaaleykum salam euh, Papa Nacou Kandé dégg nañ ko ba mu ne salaamaaleykum mu toog jàkkaarloog àddina traité les magistrats de corrompus traité journalistes de corrompus yag na ko wax daay ne euh, dina jub jubal jubanti commencé songu euh, song ba ñu def ko euh, ci ñaari fànn moy song la ci kaw song la ci souf song ci souf bi moy dem jël ay documents estampillés confidentiels parce que euh, état c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi, c'est le principal employeur de toutes les entreprises du Sénégal mmh. amul presse amul lenen ak euh état moy employeur bi entreprise bi moy contractant donc ñaari entreprise moy contracté moy état état am na côté bo xam ne ko jappé entreprise hmm. donc tay bo démé di contracté euh du lepp lañu teg ci mbedd na hmm. sa bir kër sax duudu am na ay information yo xam du génn deug la kay ñun amoon nañu ay dëkkandoo yo xam ne bu ñu doon xulo seen biir ay lakkat lañu bu ñu doon xulo seen biir bu ñu sentir ne nit ñaa ngi leen déglu dinañ yëngu dañuy commencé làkk seen làkk. Mm-hmm. pour sutura. Mm-hmm. kon tey ñoom ci seen xeex ak seen entreprise de destruction massive de la presse. Mm-hmm. et ciblage nag ci presse bi nag du presse presse rek dañoo am ay cible. man ci cible yi laa bokk te je ne le dis pas pour me victimiser. man je ne suis pas quelqu'un qui se victimise je ne suis pas une pleurnicharde.

amul benn entreprise fii Sénégal buy jox Aïssatou Diop Je marché un nga marché. dal sama dama am ay représailles dama hmm. représailles. Hmm. donc dañoo ñëw ñu ciblé ñu jël jël suñu tur yeeg document suñuy euh, man je donne mon propre exemple te lii man mooy ñeneen ni mais man comme ni ma wax ku sa bopp sa affaire la man sama bopp laay wax li xam donc laay wax ndax may wax dafa am ay ay. nàngam yoo xam ne sëkk naa ñoom jàmm ak salaam ñooy jaar ci suuf dama ko wax dama ko tegal foo xam ne nii euh, Aïssatou turu Aïssatou Diop Fall feeñ fa wala ma fa dañoo joxe ay instruction ne arrêté leen contrat ba ba pare bu ko fay xaalisam hmm. man ñi ma yore reliquat ñi ma ñu yor sama xaalis tëdd si buñ ma fayoon dama nam ma def te lii man mooy man maa ngi doog a commencé waaye lii problème bi pour Sénégal yi xam bu du yëfu impôt nit ñi bañu ñu fay impôt waaye euh, xanaa day fekk ñu may la sax nga toog waxtaan ak ñoom mais tey kenn gouvernement bi kenn ñemewul ah, tellement dañoo dañoo installé benn système pernicier de délation de weeje de weeraate de xaawi sutura de toroxalaate humilier seen ay nit

Euh, moom la jox seen ay document ak seen charlatan boobu garabu garabu bi moom la ñuy woo xam garabu garabu bi sax la ci may chance ñenn ñi mooy comme jàngul mënul liir boo ko waxee Jean mu dégg Paul moo tax moom dina bëri ay plainte te ñii duñ ko jàppale. ndax nag mënuñ laa jàppale ci kaw dëgg. Hmm. mais doo fi nekk di tooñ tuumaal ay ay ay góor jënd temps d'antenne toog ci benn télé di fenal ay nit. Hmm. dafa ne di nga fenal ay nit impunément dafa ne di nga fenal pour jaar ci kaw nit ñooñu. pour am euh, poste ñii bañ ko bàyyee du tey hmm. tey ku mu fi fenal moom dina bëri ay document dina bëri ay plainte moom ndax ku mu fi fenal wala ku mu fi waxal ñu la lu mu la warul waxal nga yóbbu ko fu ma xam ne moom sax dafa génn prison ndax da doon deedeel daf daful ba dugg ci ay pavillon spéciale yooyu di triant tappale mais ce que je veux dire mooy li tax tey presse bi ak ñenn ñi ñemewuñu sax dem toogat Euh, waa impôt pour ut moratoire mooy boo fa demee ñu da ngaa ñàkk fayda ka a demoon toogal moom ci bureau ne ko man kat li nga ma teg dafa bëri ndax loolu encore une fois du faveur lu yoon maye. Hmm. li ma li ma ne naa ko fay ci impo dafa bari mënuma ko fay nii laa ko mën a fayee loolu boo ko defee ka nga toogal ci ci ca ca ca bureau ba booy boo koy wan ginnaaw. mu génneel yëf ya xëy na SMS euh, papa naa ko kande ne ko diw ñëwoon na fi lii la bind bu ñu paree jël ko jox ko seen fenkat yooyu nekk si média yi jox ko fenkatu charlatan boobu joxaale ko seen wëyoog seen band yi ñu am ci internet bi joxaale ko seen euh, kii euh, wëyoog band yi ñu yor ci internet bi ñu jël weer la tasaare la wax ci wax ca la leen neex wax ca la leen saf mais comme mënuñu suturaal kenn xamuñu luy état xamuñu confidentialité état moo tax lépp lu leen da day ñëwaat ci Cheikh Dieng bi ak waa port moo tax ni ñuy toroxalee gor yi noonu la leen yàlla di toroxalee te toroxalu yàlla du moroomu toroxalu nit moo tax kenn benn kilifa du dem toog si waa impôt nekk fa naan dafa leen a moraat waa ndax ku ko fi def ñu weer la toroxal la ñaawal ko salteel ko te gor gu ne gor wax naa la sànq ne femme boobu ñu dénk seen femme boobu ñu dénk seen TDS yooyu nga xam ne ñoom ay incompétent incompétent la mu ay stagiaire journaliste lañ jël jox leen ay rëy yu tolloo nga xam ne xamuñu sax lu la. Hmm. mosu ñoo jiite ñaari ginaar ak ñaari soble. Hmm. kooku dem toog ci Seneweb naan may fay sax ñëw na demandé mu mu moratoire mais comme may mën a ndur fay dafa ñëw tuub yalwaan sarox man nii sama collaborateur bañ ma tegee li ma teg ci impôt sama collaborateur dama ne du dem fenn. sama collaborateurs yi ñoo ma ne yow mën ngaa bañ a dem bàyyil ñun ñu dem parce que nous avons des arguments valables pour leur parler man mosuma teg sama tànk impo xaw ma sax ban impôt la sama collaborateurs yi ñoo dem dem demaat dem demaat lii man du ñeneen du benn ñu ngi nii euh, sama yëfu FONGIP yee ña nekk ci biir FONGIP ñooy jël say ñooy jël say document pour neexal Papanacou Kandé. loolu nag données personnelles. waaw diffusion de données personnelles waaw pour man nee naa seen seen cere yooyu ñu yor ci internet bi. Hmm. ak seen ñu tekkiwul dara ñu ñu baax ma si kàddu cere yi ma wax. Hmm. ñu tekkiwul dara nag dañoo jël xam nga comme ni ma wax rek ku ku am njëkk rek la ñuy jël. Hmm. seen cere yooyu am xam tekkiwuñu dara. ak ñu amul benn peu de valeur. ay góor yu ñàkk fayda ay góoru caapataat yoo xam ne tekkiwuñu dara démb balaa tey di ñëw. mënuñ sax fay bi jël benn employé de maison di ko fay ñooñu nekk ci Facebook bi di bindal nit di waxal nit man ko ma bindal loo xam ne du dëgg moo tax man comme si Papana Koukandé laa def xam Papana Koukandé yor na fanweeri junni faux compte man lu ma waaye waxal ñoom ñëpp maa ngi ci bloqué ndax man am naa bi gën a siiw mooy bu sama tur bopp nekk Aïssatou Diop Fall sama photo sama photo doom nekk ci yor naa yeneen fanweeri compte ak juróom-ñett laa yor ñoom ñëpp maa ngi leen di liir lu waay wax ci man dégg naa ko lu waay wax ci man gis naa ko dadi nag man Aysatu sama combat dafa cher damay